waa nijaay. xaw xamoo ko man dama jaaxle li ma jaaxle loo fi ne tabaski jub si na te fi ne boo ko amul kenn du nelaw ndax sama njaboot gu sew gii wax diggante bi ñëpp rey rey loo dafay ñaaw ci man te ki ma bokkal yàlla baaxee ne ko trop. ñoo bokk ndey ak baay ñun ñaar rek la waaye fi mu ne ba dama ne woon dem ci moom pour mu dimbali ma ndax am am xar ndax su ko deful kat dana ñaaw. Ah, tabaski baa ngi ñëw de te xar moom farata la waaye man su ma sañoo doo dem ci saw yéen a bokk ndey ak baay du ma ci wax loo xamante ni dama ciy ñaaw mais su ma sañoon doo fa dem ndax yow mii gënuma laa xam jikko mi ngi ci dëkk bi yor lu dul dimbaliwu ci ay mbokkam lu dul xaalisam ak di ko sàmba àllaal moom lay defal yéen a bokk nag ma ci wax lu ñaaw mi ngi ci dëkk bi yor defal jàmbur bàyyi la su ma sañoon doo fa teg sa tànk Mamadi danga bàyyi rek ma jéem a seet dàq sama wërsëg rek bu ma joxee baax na bu ma joxoon it ma ànd ak yàlla suñu borom rek te waxtu yi ñëw jot na ba noppi tabaski ñëw na bàyyil ma ñëw dem fa rek seetu ko ba xam maa ngi ñëw léegi bu neexee yàlla la fa jële metti na ma ba ca kanam yàlla bokk nit ndey ak bàyyi yàlla baaxe ko ma dem di ko joytu sama mbir mu dimbali ma ci tabaski bi nga xam ni tabaski bi ñëw na ba tamit te li dax may gën a sonn sax xale yi la waaye bu doon ni maag rek du ma ci sonn toroxal na ma gëdd ne ma nag bu doon loolu laa ko doyee kon du toog ak man nee na amul lu may naa liggéey ponkol la góor la naa liggéey na ñëpp lii daal moom laa fa jëlee. man de li nga jëlee ci saw bett na la yow waaye man bett ba ngay dem nee woon naa la saw samba alaar la alalam àll bi ñoo koy lekk léegi nag li jaay lan mooy pexe. ah mënuma dallu li bala ngay naam ne fa bu doon màggee yow ci kër gi rek du benn problème waaye njaboot gu sew gii. waaw ko bi yëpp bu ñu yewee seen xel a ah, ñu toog naan papa papa diw yeew na diw yeew na te yeewuloo lay doon ci man du neex ci sama xol ma bëggoon nag jóge fi ma toog yow wax bés bi jot na ma dem sa dem sa sëñ su ma demee wax ko sama jàngoro yàlla mën naa def maam am xar ak lu tegu jëm xar wala lu ma fa am rek xam naa ne ma nee na nijaay li nga jëlee ci saw mën na laa bett yow waaye bettu ma tey nag comme que yow yaa jëlum sa décision dem ngir tenter sa chance te da di sa mbokk mënuma ci woon a wax lu ñaaw waaye yow xam nga ji koy saw comme que nag nii la demee fexeel demaat na ci xam ah demal ci Moussa ba xam yàlla baax na mën naa am say suñu yaakaar yàlla du ko tas foofu mën na la jàmm te ñëw. yàlla na mottali lépp. amiin amiin amiin wala jàmm te ñëw. avance bu bari nag yow billaay billaay tabaski gi ren dina neex de gi ren kay waaw man mii de noonu lañ ma doxalee ba toog ah. waaw kuy mu mag lañ ma yeewal mm-hmm. jox ma xaalis bu bari ren moom du ma namm dara waaw billaay yow su ma teggi woon amoon naa jox la ko mm-hmm. dégg la doomu ndey at naa mu solo sama ñàkk gi lan mooy xar ak lan mooy alal am na ñoo xamante ni ñoo ngi am seen alal ju bari te duñu dox ci chaise roulante la ñuy toog wala nga dem hôpital bee ñoo fa fees dellu kon xaalis nekkul lu dul coono maa ngi sant yàlla nag ba ma amee wér man ak samay doom ak samay nijaay ndax loolu mooy am am sant naa yàlla bu baax. te borom kër gu ah, ñu dara. loolu la de loo xam ne moom ba at at ba at la moom bu dee bëccëg ñaar fukki sax war nga koo mën a dajale bu dikkee nga war a mën a jënd ab xar ndax xar moom bokk na ci loo xam ne day tax ñu naaw la ak ñu respecté la waaw taama yàlla baax na na mu solo am am du dara man nag maa ngi ñëw dem ndax aw ma toogaay sama nijaay dama ko ba woon mu gën te mën naa ñëw sama ginnaaw nekk leen hmm. ñëw xale yi ni ma yaa ngi ci kaw maa ngi ci kaw ni di xool xar mi xar mi de ah ni xar mi moom baax na de ñi baax a ngi baax ñi baax ñi ngi baax ñi def lu baax ñi def lu baax moo tax àddina boo bàyyee sa bopp ak yàlla rek yàlla ko ànd ak moom mu ànd ak yow te aja muñ yi la yàlla àndal muñal gi ma muñal nag xataloo ma moo indi li lépp ak yabal gi boo ko indi woon yabal gi ñu sonn moo la joxe gànnaaw mi sumuru sa nga ko doo wax waaye nag yàlla bi nga xam ne ni sa xol la yàlla fay ci njaboot gi ndax danga maa sëy sëy bi seet sama xol kon am na lu ci ànd nag loo xam ni ah bari na bariwut waaye def na am na yaakaar ni a ah, mën nañ cee def tabaski suñu tabaski juróom benn fukki ñu ni daal la nii yoo xam ne wax ma la bari sax waaye ëpp na ëppul waaye nag lépp waral mm-hmm. mbir maa ngi noonu. lii de moom ni jaay baax na trop. def lii de moom yal na ko yàlla fay xolam ndax lii mu def nii bu ñëpp defoon ni nu mel kon dëkk bi ñàkkare du fi am man nag kontaan naa ci xar mi macha allah sama xol dafa fees sax xaw ma lan laay wax ndaxte tey jii ba may dem natt ba jaaxle woon naa trop su ma sañoon nag teeg gi lii bala la ko sëñ bee defal ma defal la ko ndax nijaay ji nga teraanga bu ne te nag àdduna moo tëddee ni nu mel am ak ñàkk ñoo ànd kontaan naa nag trop ci xar mi ak xaalis ku la ëppale di la ko won na ko won ak doylu mhm. boo ko wonee ak doylu rek doo tiit ci dara loo am solo loo am lekal biir du fen li nga xam nag moo ci ëpp solo nan ngay mën a amee alal nga bàyyi fi koo xam amul dara nga dem fekki borom alal nga yëkkati alal di ko dimbale loolu foo ko teg nekku ci ak yam yàlla loolu ci ak wane wu te loolu dafa bari ci dëkk bi bari ci réew mi bari fépp da ngay am problème mu ordonnance léegi dem ci waram alal ni kon ordonnance laa am mun la maa ngi ne yoruma dërëm génne maye fii léegi cinq cent mille kooku fu ko teg jaamuwul yàlla fu mu ko teg yor sa oto bu rafet yor sa 4x4 sa jabar yor 4 x am ngeen yor R plus wala R plus 3 dëkk ci kaw ba noppi nga xeeb ki nga xam ne daa dox di déedéet bu ko xeeb. ndax mën ngaa toog ak nit xeeb ko guddi jot mu faani ci yàlla nga faani sa néeg kon nag bu kenn xeeb kenn nañu fonkante ci sunu biir di dimbaleen ci sunu biir te bàyyi borom alal yi di jël seen alal di dimbale borom alal nañu seen borom miskin yi di leen dimbale te yàlla tax lii laa di ñaax borom alal yi dimbale leen ñi amut ñi amul ñoo ngi muñ ànd ak yàlla yàlla ñëpp la fi nekkal parce que li la may mën na laa xañ may kenn kon nag ku ci yàlla may na nga dimbale ku ci yàlla jiital na nga yërëm ñu jiituwul kon lii rek laa ne woon dinaa ko envoyé muy message yi pour ñëpp déggandoo ko muy ko am alal ak am alal ñëpp ñi ci suuf ñi am alal nañu góorgóorlu di dimbale ñi amut jàngoro ji fi nekk yal na fi yàlla jëlee tabaski bi ñuy séntu yal nañ ci yàlla dugal bismillahi rahmaani rahim ku ko am woon yal na la ko yàlla may ñi ko am yal na leen ko yàlla yokk te ñu gën a góorgóorlu nag di dimbale nag miskin yi di set dëkkandoo yi tamit dëkkandoo bu ci xewle jàppale ko ba mu mag alhamdulilahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad